salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa Yarax salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum képp ku nekk biir Yarax salaamaaleykum ikri Yarax salaamaaleykum doomu Yarax yi nga xam ne ñoom ñoo nekk biti réew di daan doole ñu nekk Italie Espagne États-Unis ñoom ñëpp France Angleterre Allemagne bàyyiwuma kenn fépp fépp Maroc ñëpp bàyyiwuma kenn képp koo xam doomu Yarax la ñu nekk euh, ba Brésil ñu nekk Turquie ñoom ñëpp. ma kenn di nuyu Ikri Yarax ñoom ñëpp commencé ko suma papa Père Ngouda Aliou Sarr Souleymane Diaw nuyu staff bi ñoom ñëpp Ado assan ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di nuyu Ablaye Wade jóge foofu di nuyu ñi nga xam ne tamit euh, muy tey Pape Sini Souleymane di nuyu Abdou Gueye di nuyu Serigne Mbaye di nuyu euh, Serigne fay ñoom Papa Dieye ñoom ñëpp maa ngi nuyu Jaba bàyyiwuma kenn. di nuyu suma suma mbir suma nitu bopp Baye Diagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu suma rakk xol mi saar Sarr maa ngi koy nuyu di nuyu tamit 100 pour cent bu baax a a baax maa leen di leen tatakal di leen jaajafal gis nañ taxawaay bi nu mu mel gis nañ li ngeen def waa en TV di sunu di sunu site internet di sama surtout man sama sit internet ci Yarax maa ngi leen nuyu bu baax baax a baax a baax a baax di maa leen nuyu maa leen ko promettre woon te dinaa ko def la promesse c'est det kon nag. salaamaaleykum. waaw sama secret waaye rax nag mooy li mu wax rek xam nga nit ki di yor bu yoree sa boo yoree sa sa ndonga lu la neex rek lay def man yarax may soldaaru yarax may nongal yarax lépp lu waa yarax bëgg te muy jëmale yarax kanam je le ferai dama koy def tey bu doon dañuy teg ay sabar di tëgg noonu nit ñi di fecc rek pour mu jëmale yarax kanam ma def ko si daara yeeg mm, kazalika noonu man lépp lu jëmale yarax kanam rek laay dox dox lépp lu jëmalu yarax kanam nag bokkuma yëguma tinuma mais lépp la nga xam ne activité la nekk biir yarax te jëmale ko kanam mu fekk ma fii si biir yarax dama si ñëw bokk si dugg si en cent pour cent parce que yarax benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar yàlla def na lépp muy muy mbër mi nappakat bi menuisier yeeg tôlier yeeg jaaykatu jën yeeg ñëpp benn lañ koo si laaj li ko dara yarax ba cat ba cat koo laaj ñun la mu ñu yóbbu la ñu la si këram kon yarax benn la di ñaan li am yarax ni yàlla na yàgg juba bi am biir yarax yàlla na sax yarax ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mag ñi nañu yërëm xale yi xale yi déggal mag ñi lol de mang koy lancer wala di wax na ñepp xamni yara ben bop bopp la kenn mënu ko xar ñaar ku ko jëm do ko fekke mag ñi nga fi ñaanon bay ko fi yalla na jàmm yàgg biir yaraax alaykum wa sama combat wacc na ko ni ko waro waje def na ci lepp lu war fi ñu ci ay déplacement la nek daw yi ñew teud nelaw naan ataaya si loolu laa parce que bu yalla defé nga nek ak ay kilifa ku melni Père mu jaar fa mu war a jaar Alioune Sarr def la mu war a def Souleymane Diaw def la mu war a def mbëri def ak yow li ñu war a def ak yow ñi lay toppatoo muy ablaay ak Paamar ak Ibrahima ji def li leen war képp kuy supporte Moussa Ndoye muy waaye Yarax ñiy def li leen war fi ñu toll nii kon la moo dese mbër mi dem defi li ko war le 28 li ma war rek laa war a def si kàttanu yàlla yàlla na ma yàlla kàttanal may ma tal ak fekkee may ma jàmm may sama adversaire jàmm lu ñu dul fàtteeti fecc lu ñu dul fàtteeti indi cosaan indi aara dugg ci géew biir géew bi yàlla may ma ndam ci kàttanam yàlla non man duma ma favori ñoom ñoo naan favori man dama jàpp ni man chaque jour nongu laa rek ku may bëreel yaa am fete kaw képp ku may bëreel tey ñi mu am sens su ñoom kenn la am sens su bëri moom te bëri gu ma ak moom te du ma tudd turam mu ngi ci combat moom la musa bareel aw ma sens su bëre kooku mais bu yàlla defee nag bañu pare si moom xëy na dinañ seeti dinañ dinañ dugg si cour de grands parce que duggoon na wàccaat man suma ma duggee du ma wàcc. Hmm? waaw waaw déet ma ni moom la gis nga nit bu bëri wax dalay jaaxal man dama gërëm xam nga ma ko wax te maa ngi dégg mu naan musaandooy Ndoye day wax day wax day wax te man musuma wax si moom bëggoon nit ñi jaxase wax wala nit ñi bëlëfe ko wala mu bëgg combat bi am buzz parce que kuy bëreeg Moussa Ndoye buzz la dama xew bëreeg Moussa Ndoye dama xew mais kuy bëreeg man buzz la ana ñu bëreeg man buñ duggee si laa ma sax ñu lan lay wax kii moo bëreeg Moussa Ndoye loolu dafa neex parce que man booy bëreeg man tàkkusaan boobu tàkkusaan lay doon ci tàkkusaan yi man si biir tàkkusaan lay xool sama tàkkusaan déggoo la ma de si biir tàkkusaan yooyu lay lay lay rocc sama tàkkusaan téye moo tax saa su ne su ma leen waxee ñu la ndaanaan dañu war si bàyyi xel nee naa man képp ku nekk ndaanaan si làmb nangul naa la sa ndaanaan mais man ba wëlbatigul ni Moussa Ndoye mooy sama ndaanaan ndax man dama ni kulli ndaanaan maay waaw man de ñaanuma yàlla année balance moom mu année balance li waral mu année balance nag moom la concerné mais man de ñaanuma yàlla année balance heure bu combat yi wàccee moo war a bëri man combat bu wàccee sax ndeysaan sama entraîneur moom mooy waaye allo Moussa Ndoye sa combat wàcce na loolu laa ci am xamul ne entraîné naa xamul entraîné moo tax dañ ni man chaque jour au top chaque jour dama si nekk chaque jour dama si nekk maa ngi gis nag combat yi ñu ngi naan waaw musa Garga mu yokk poids billaahi si kàttuñu yàlla sama nawle la sama mbër la kam man man nag moom mais dafa am fu ma teg sama bët ndax picc ngi si kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu la ñu wax mais man sama xel am na fenn fu ma ko teg mais moom laa war a bëri le 28 su ma paree le laa laay wax fi ma jëm waaw. Mhm. Mhm. Mhm. waaw foofu damay leeral rek non wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yàlla rek ma tim dox nañ sama combat Sa Thiès sottiwul sottiwul te man bëri muy suma métier ñu woo ma nga combat garga bi may woo ak bi bi ñuy wax waaw matul 15 minutes xam nga combat ba jël 15 minutes faale ko 15 minutes daa jëlee combat bi dañ ma woo fekk ma ne ci biir géttu xar yaa xam naa am ma ko fi nekk doy ma seede sama téléphone ni kar ma jël ko muy nit allo waaw sab combat gar lañ bëgg mané ko ndax wo nga suma staff mun waxtaan nak ñom ni ak ak man ko am problème su paré rek sama combat Sa Thiès dañ ci waxtaanon diko dox yalla def na wul non man yalla musuma am combat ñu naan ci musa Ndoye la problème musu non mën mo gëm gëw mako wax dëgg yalla musul am su amé nak su man su fekkon man mani ni déedéet damay taxaw ni déedéet mais tamit moy limu yau, wax tay dina bëgg bëre yow yow do bëgg bëre ak man te ku bëñ ku bëggul bëre yow mënoo ci dara xeyna na amna fen fum ko tek waaw mais nak yalla garga ma booleel yalla na ma yàlla may ndem ci mom rek waaw moy mom yalla nako yalla may werde may ko tal ak mu ñew am jam, wax deug yalla am jam, ba ci biir geew bi am jam, ma am jam, arbi sifflé ñu bëre yalla may ma ndem si ko mu amat jàmm agat ba kërëm continuer ay activité am ma continuer sama activité ñu xam ne ñoo bokkoon ndey bokk baay ah. wax ji neexal lii la rek mais ñoo bokkoon ndey bokk baay amul lenn lu ma koy approché vraiment sincèrement parlé amul lu ma koy approché jàppalu ko dara suma ma nawle la su ma mbokku nit mbokku taalibe la tamit ñun duñu ay dof mbër noobul la ñun man noobul laa man ku nangul doon noobul mais man noobul la noobul laa parce que fi ma dëkk ki fi dëkk da ngay doon noobul man yarax laa dëkk yaraax tey noobu lu yaraax lañ dëkk tey li may wax nii tey ku bëgg a doon président sax bëgg a doon président da ngay dugg yaraax ñi bëgg doon roi des arènes yëpp yàlla la jaar nañ yaraax li may wax nii ñi bëgg xanaa dugg ma la dañ ma jox délai ni war a doon roi des arènes cent pour cent adversaire man dama waxoon ma ni su ma paree ci sama combat bi damay taxaw ci digg ci digg ci digg géew bi ma jël maa jël maa jëm jëli micro bi taxaw ni kan ngeen may booleel may pose waat question amateurs yi ku amateurs yi wax laay bëreel mais dinañ wax ku bëri xam naa loolu ci ci kaw ci kaw su ma paree ci kii naa jël mbër mu am defet déggoo ma de waaw maa ngi dénk waa Yaraax ni le 28 nañu xëy ñëw ñu def li ñuy def ci fair play ci discipline ñu ñëw yàlla defal ñu jàmm musaan Ndoye comme li ma wax ma yeewu ci jàmm nekk en forme def ni ma ko daan defee comme ni ngay ñëwee wax naa la li des ci combat bi heure bu neexee duggal heure bu neexee génnal site bi ñoo ko moom ñun waa Yaraax heure boo neexee dugal heure boo neexee génnal si bi ñu noo ko moom nu waa Yaraax te waxee ma ko pour bëgg wax ci micro wala dara maa la woo ñu la kaay parce que day yoon da ma wax benn wax ma xam ma wax nga ne ma Moussa man la naam nga ne ma chaque jour wala chaque un mois war naa la jël ñuy génn di waxtaan tey matalew ko kon man su amee bis bu teel lépp demee am naa droit wala wax si yow parce dafa am la xam ni. parce que olof Ndiaye dafa am benn wax lu muy wax bay sa weeru tànk kuy waxal keneen te am loo war a waxee waxal ci fi nga war a waxee te dañ ne wax sa waxukaay ba man fii rek laa mën a waxee si yow. am naa fi ay gan ngeen ànd ak man vingt et un jours xaw ma ay quelque di dem ak man ñëw fu nañ dugg fa mu nekk la xam ne partout dans le monde seetaan nañ ko partout dans la monde gis nañ ko ku si ne extérieur ku ne di ma woo te mu nekk la nga xam ne tey jural na ma la xam ni sant yàlla. tey mooy li ma wax maa ñodduwul star mais star la parce que dañ ne ma wàccee sa bopp rek boo wàccee sa bopp rek dañ la yëkkati dina am ku la yëkkati te rabbi samaawaati wal ardi yàlla na may yëkkatil boppam saa su man chaque jour man taalibe la na ñëpp di jaar sama kaw di jàll man maay nee na man maay soldaaru yarax maay porte drapeau yarax comme drapeau bi instant yi indi nañ ko meeru yarax ñëw na tey indi na ko si biir kër gi drapeau baa ngi ci kër gi drapeau bi yarax dugg na tey sama kër di ñaan nu muy fa nu muy folotee yàlla na folotee noonu le 28 ma gàddu ko indiwaat ko fii jox ko ñi ma ko war a jox muy waaye raax yëkkatiwaat ko tegaat ko ci loxo mu tegaat ko fu mu fu mu war fu mu ne di ñaan nag képp kuy doomu yaraax nga nekk bitim réew nga nekk bitim réew nga nekk ci pays Afrique yi na ñëpp ku mënul ñëw ku mën na ku ne mën ngaa wax allahuma boo ji boo ko jàng nag nga ñaanal ma yàlla suturaal ma le 28 maa ngi ñaan yàlla di wax nag. Euh, fan si club Moussa Ndoye yëpp sant naa leen gërëm naa leen cent pour cent rax sant naa leen gërëm naa leen vraiment kontaan naa ji bi kontaan naa bu baax def nañ acte bu rëy wër nañ def seen sensibilisation wër biir yaraax annoncé combat bi dël xaalis def si kon loolu sant nikk bu la defee lu baax da koy wax